Mesdames, Messieurs, chers compatriotes sénégalaises, sénégalais, moi, Vieux Chan, président du mouvement Union pour un Sénégal modèle, USM de Sénégal, j'affirme mon engagement pour un Sénégal uni et pacifique. Nous nous opposons au report de l'élection présidentielle de février 2024 et rejetons avec la plus grande énergie le système de parrainage qui a éliminé un certain nombre de candidats crédibles, qui, comme tous les candidats, doivent avoir la sens d'être candidats et avoir la confiance du peuple sénégalais souverain. Mon mouvement Union pour un Sénégal modèle ISM Defar Sénégal encourage tous les citoyens à adhérer massivement à la dynamique du mouvement axé sur l'intérêt exclusif du pays. En tant que jeune entrepreneur et titulaire d'un doctorat en sciences de l'éducation, j'ai eu l'opportunité de mettre en place plusieurs entreprises dans le seul but de contribuer au développement de notre pays et d'encourager les jeunes à y demeurer. De créer des emplois. À l'heure actuelle, j'ai actif la gestion d'une équipe de plus de 50 employés, ainsi que la création des plateformes éducatives les plus fréquentées par les jeunes qui ont pour de fournir des informations en temps réel sur l'actualité éducative tant au Sénégal qu'à l'international, ainsi que sur les opportunités d'emploi, de stages, de bourses d'études, les procédures d'inscription, les concours, les examens et les épreuves concours. Je crois en cette jeunesse de qualité et les défends car ils sont l'avenir de notre pays. En qualité de leader politique, je demande respectueusement aux gardiens et garant de nos institutions, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Je répète, garant de nos lois et de notre constitution, de reconsidérer ses positions politiques. Je lance un appel à la non-violence et à la recherche de solutions afin de consolider notre démocratie. Référencée dans le monde en matière de paix, et de stabilité sociale. Monsieur le Président, nous avons remarqué que l'ensemble de vos échanges s'orientent exclusivement autour des politiciens, des artistes et des sportifs. Nous souhaitons ardemment que toutes les courses de la nation soient dignement représentées lors des dialogues dans le plus grand intérêt de notre pays. Exemple, l'association des jeunes les entrepreneurs émergents, les enseignants, les personnes en situation d'handicap, ainsi que les chefs d'entreprise du secteur privé, les chefs de quartier, les groupements des femmes de ménage, les gardiens, les menuisiers, les mécaniciens, les maçons, les soudeurs, les électriciens, les plombiers et tout autre secteur existant dans ce pays. Écoutons les Sénégalais pour ne pas nous tromper sur nos priorités envers eux. Nous vous exhortons à libérer les détenus politiques qui n'ont fait que valoir leurs opinions conformément au droit constitutionnel qui est la liberté de parole, liberté d'expression. Oui, pour la révision de la Constitution, pour mettre en place une Constitution où le pouvoir exécutif et judiciaire seront strictement indépendants avec des mandats irrévocables. Retenez mon nom, Vieux président de l'Union pour un Sénégal modèle USM DEFA Sénégal. J'aime le Sénégal et je veux le servir. Vive la jeunesse, vive la démocratie, vive le Sénégal, que la paix soit avec vous. Merci beaucoup. asalaamaaleykum mbokku askanu Sénégal maa ngi la ñuy nuyu ku nekk ci tuuram ak ci santam di rafetlu seetaan bi nga xam ne moom ngeen ñuy seetaan ci réew mi ak ci bitim réew man maa ngi tudd Vieux Thiane nekk ndaw di jiite mouvement bi nga xam ne moom la ñuy wooyee union pour un Sénégal modèle defar Sénégal mouvement bi ba ma ko sampek léegi mën naa ne mën na ñeenti at parce que nekkoon naa fi candidat élection yi passé muy élection communale yi ca Richard-Toll tey dama ñëw fii nii pour waxtaan ak yéen ci li nga xam ne moo xew ci réew mi muy élection yi nga xam ne ma Macky sàll daf ko reporter ñi ñëw nag pour ñaan ko si njekk ak teraanga pour wax ak moom su ma nee organiser waat élection yi ak nu ma gën a gaawee ngir Sénégal mën a nekk si jàmm ak salaam parce que mooy suñu yitte ñun ñëpp. di ñaawlu aussi lii nga xam ne moom la ñu tuddee système de parrainage parce que dañ ne système de parrainage du lenn lu dul éliminer ñi nga xam ne ay candidats yu baax lañ te candidats yu jëriñ réew mi ëllëg lañu te dañoo gis ne ci biir candidats yooyu am na ay candidats yi nga xam ne dañ leen éliminer te ñëpp yaakaaru woon ne dañ leen éliminer parce que ay candidats lañ yoo xam ne nii am nañu base am nañu nit te am nañu ay la ci réew mi. ci loolu en tant que président di jiite njiitu USM defar Sénégal maa ngi ñaanaat encore kii nga xam ne mooy chef de l'État mu xoolaat encore jeunesse bi. mu encore gën a xoolaat li nga xam ne moom la ñuy teg ci jeunesse bi. man mii di wax ak yéen ndaw laa buy dox ci wàllum entrepreneuriat yàlla def ma am diplôme si wàllum éducation nekk docteur en sciences de l'éducation di jiite benn structure boo xam ne ci wàllum éducation lay wax di liggéey ak ay jeunes yoo xam ne nii wax dëgg fa yàlla yàgg naa ànd ak ñoom di liggéey te boo xoolee war nañu mat presque ci cinquante jeunes. tey dañoo ñëwoon pour ñaan encore sénégalais yi ñi bàyyi xel ñii nga xam ne ñoom ñooy opposition bi yàlla def ma bokk ci benn coalition bu naan Bassirou euh, président te coalition bi ma ci bokk avant tout d'abord candidat laa woon dama déposé woon direction des élections ñu jox ma sama fiche de parrainage ma nekk numéro 169 ba ma demee ba récolter samay parrain am ci lu tolloo 43 mille parrainage dama mujj reculer dem ànd ak opposition bi rien que pour intérêt réew mi te mënoon naa ne kat damay dem def liggaay def di xëccoo loolu fekkuma ci damaa reculer waat dem ànd ak opposition bi rien que pour njariñu réew mi. ñun ba ñu dalee politique ba léegi musuñu politique ngir xaalis parce que depuis 2012 ba tey ñu ngi liggéey musuñu politique ngir intérêt personnel. bu dul woon loolu dong la dañuy toog fi ñu toog te liggéey suñu liggéey mosuñu aussi politique pour siiw boobu ba léegi musu leen ñu gis ñu def point de presse ba mel nii mais ñun dañuy liggéey dañuy politique ngir intérêt réew mi. man mii di waxtaan ak yéen tey yàlla def na ne ma ànd ak samay moroomu jeune di jàng ba yàlla def na ma am lii nga xam ne moom la ñuy wax docteur en sciences de l' éducation diplôme di wax ci wàllum éducation ba pare da ci liggéey yàlla tey dogal ne suñu toogaay ci réew mi. amal njariñ jeunesse bi yàlla def ñuy créer plateforme yi nga xam ne moom lañu ñu gën a seetaan ci réew mi ak ci environ parce que jeunesse bi suñu bëggee am information ci éducation dañuy dugg suñu plateforme yooyu nga xam ne créé nañ ko pour mën ci am information à savoir lu mel ni ay éducation sn com lu mel ni ay info étude point com lu mel ni ay concours point sn lu mel ni ay étudiant point sn lu mel ni offre emploi point com offre de bourse point com bëri na bëri na bëri na plateforme yooyu lan mooy njëriñam mooy day tax jeunesse bi am information ci wàllum emploi am information ci wàllum bourse am information ci wàllum concours am information ci wàllum examen am aussi information ci wàllum épreuve concours ak lépp li nga xam ne day wax ci wàllum éducation tey dama fa am fierté nekk jeune ba pare aussi am engagement ak am détermination pour jàppale samay moroomu jeune loolu moo tax à chaque fois su may wax damay jiital jeunesse bi parce que dama gëm ne jeunesse bi dong moo mën a euh, avancer le réew mi jeunesse bi dong moo mën a doxal réew mi di ñaan état bi ñaata jeunes ñoo jàng nekk ci réew mi toog amuñu xëy ñaata jeunes ñooy xëy am seen diplôme stage sax pour ñu am ko c'est tout un problème ñun ñooy nekk di sacrifier wu di xool yan entreprise ñooy recruter ñu recenser ces articles ñëw pour jox leen ko pour ñoom ñu mën a am information yi nga xam ne bu ñu bëggee am liggéey foofu lañ koy amee. man nag en tant que jeune politicien damay ñaan nag si njëkk ak teraanga kii nga xam ne mooy président de la république monsieur Macky sàll mu xoolaat encore li nga xam ne mooy suñu loi ak suñuy décret réew parce que il faut que ñu xoolaat loi bi il faut que ñu xoolaat suñuy constitution ngir ëllëg Sénégal du am problème yi mu am parce que tey ku nekk suñun war naa mën a nekk candidat si njëkk ak teraanga bu jour vote euh, sénégal yi dem xool ku ñu ànd ak ku ñu bëgg votel ñu ànd moom voté votel ko sans problème mais bu ñu bëggee dem ba élection yi des quelque waxtu ñi ñëw ne dañ koy repousser je pense que loolu aussi lu ñu war a xoolaat la te dañuy ñaan nag dañuy ñaan si njëkk ak teraanga ak respect parce que président Macky Sall suñu président la duñ ko wax loo xam ne nii ëllëg danañu si xeeb parce que man damay ñaan yàlla ëllëg su ma nekkee président bañ benn doomu aadama ñëw di may wax loo xam ne nii naka suñu noonu la moo tax ñu koy ñaan si njëkk ak teraanga si njëkk ak teraanga nag mu bàyyi ñi nga xam ne ay prisonniers lañ ay prisonniers politique surtout nekk ci prisonniers yi prison yi ñu tëj leen ndax lan dañuy politique dañoo bëgg nekk président ëllëg wala dañoo bëgg nekk maire ëllëg maanaam dañuy dox si wàllum politique. parce que dara ump leen Sénégal bëri na ay détenus politique ñaari at yi passé mais ñu dañuy ñaan yàlla dañuy ñaan président euh, ak yàlla dañuy ñaan yàlla suñu borom ak président de la république mu xoolaat encore. li nga xam ne moom mooy détenu politique yi mu jéem leen libérer le plus rapidement possible ku nekk si ñoom mën a ñibbi këram toog si wetu njabootam. suñu njiiti réew président Macky sàll ñëpp xam ne ne Sénégal mooy réew moo xam ne nii jàmm ak salaam lañ ko xamee kenn mosul dégg Sénégal lu mel ne lii ñu naan ko aj ay élection mën naa ne dañ ko tuddee aj ay élection ba bàyyi ñiy gis communiqué parce que wax nga ci télé bi ne. danga koy ajagum ñi bëgg ne démocratie boobu noonu nga xam ne yenn pays jox nañu ko dañoo bëgg tey mu gën a sax bëgguñu mu yàqu benn yoon bëgguñu suñuy nawle dañuy xoole ne Sénégal réewum foqati pouvoir la te loolu amul euh, te yàlla bu mu am ci réew mi. monsieur le président ñun dañoo seetlu ne à chaque fois boo wootee dialogue a chaque fois boo wootee waxtaan ay politiciens ngay woo. ay artistes ngay woo ak ñi nga xam ne ay sportif lañ wala des fois mën nga woo ñeneen ak ñeneen ñoo xam ni yéenay àndandoo di liggéey mais ñun dañoo bëggoon ba booy woote ti dialogue ak lu mu mënti demee nga bañ a fàtte ñi nga xam ne wax dëgg fa yàlla réew mi bu doxee am nañ ci part réew mi bu avancé am nañ ci part muy ñan association des jeunes muy ñan ñi nga xam ne ay jeunes entrepreneurs lañ. créer ay entreprise ci dëkk bi au lieu que gouvernement bi soutenir leen mu leen ñuy indil ay problème wala mu leen ñuy buntu xatal ñi nga xam ne ay enseignants lañ moom la ñu tuddee jàngalekat parce que tey enseignant njëriñ bu muy apporter réew mi di jox éducation xale bi amul ci sa ministre yi kenn ku koy def parce que tey imagineel nga jël benn enseignant nga orienté ko benn dëkk boo xam ne du gis ndox du gis courant mais day débrouiller rien que ngir servir réewam. ñi nga xam ne aussi ñooy handicap yi mooy ñi nga xam ne tey euh, mën naa ne dañ koy tuddee euh, mënuñu seen bopp lu bëri ñooñu aussi war nañ leen mën a jël boole leen ci li nga xam ne ay waxtaan lay doon su ko defee ñoom aussi ñi xam ne ay nit lañu comme ñëpp parce que handicapé beeg ak ku daru jotul ñëpp ay sénégalais lañ ñëpp ay citoyen lañ ñi nga xam ne aussi ñoom ñooy chef entreprise yi nga xam ne ñu ci réew mi nekk si secteur privé. parce que bu ne entreprise kii privé la rek warul am yenn avantages yi wala warul am yenn opportunités yi wala dañ koy faagaagal mais aussi ñi bañ a fàtt ñii nga xam ne ñoom ñooy les femmes de ménage nekk ci kër yi di liggéey am na sax ñuy utiliser terme di la ñuy wooye mbindaan te man awma habité sax di la ñuy wooye mbindaan parce que dama ne ñooñu dun ay mbindaan dañuy daan seen doole te mbindaan moo bi mën nañ ko waxee ne lu dul mbindaan ñii nga xam ne aussi bu ñëpp di nelaw ñoom ñooy toog di garder kër yi di garder entreprise yi ñu koy wax les gardiens la sécurité ñun aussi tamit war leen leen di la ñuy boole ci li nga xam ne mooy tout le temps day am muy ay waxtaan. ñi nga xam ne ñooy ay menuisier moo xam muy menuisier en bois bant wala menuisier en fer muy weñ wala menuisier aluminium lu mu mënti demee ak ñi nga xam ne ñooy mécaniciens yi parce que sa oto yow bu yàqoo sax en tant que président de la république mécaniciens yi suñu ñëwul du baax. même bu dee da nga am say mécanicien biir palais sax dañ leen ci war a boole ci dialogue yi parce que ñoom dañoo amal njëriñ réew mi. ñii nga xam ne aussi ay maçon lañ tey mën naa ne palais ay maçon ñoo ko tabax am nañ ci part ku nekk si ñun kër gi ngay dëkk maçon am na ci part ak ñi nga xam ne ñooy ay soudeur ak ñi nga xam ne aussi tey buñ toogee fii di wax am nañ ci part mooy les électriciens ak ñi nga xam ne mooy les plombiers. bépp secteur bi nga xam ne mi ngi am ci réew mi te cité wuñ ko bokk na ci muy sàmmkat yi muy ñi nga xam ne aussi mooy association des étudiants am ay amicale moo xam secteur privé ak secteur euh, public nga boole ci aussi ñi nga xam ne tey dañoo yor wàllum euh, santé ci réew mi association des sages-femmes association des infirmiers association des médecins ak ñi nga xam ne aussi ñooy association des écoles de formation professionnelle ak supérieur ak collège ak lycée ak crèche ku mu mënti doon monsieur le président réew mi du ministre yi kese wala député yi kese wala mair yi kese wala directeur yi kese réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk te réew mi avancer il faut que ñun ñëpp ñu àndandoo dóorandoo su ko defee Sénégal tey dina toll ci réew yoo xam ne ni mooy réew yi gars yi gën a naw ci àdduna bi monsieur le président. nañu déglu bu baax a baax a baax baax sénégalais yi ñu xam ne xëccoo bi xuloo bi xeex bi amulul njëriñ réew mi réew mi pour mu avancer il faut ñu tuddee ko lu naan jàppal ma jàpp il faut ma jàpp il faut yow nga jàpp il faut ñi nga xam ne ñoom nga fi teg pour ñu liggéeyal askan wi ñu jàpp mais tey jii réew mi ni muy doxee arrangé wu la arrangé wu ma arrangé wul kenn parce que tey ñëpp ñu ngi toog. seen toogaay seen activité mu ngi taxaw parce que nit ñaa ngi wàcc ci télé bi di yàq te loolu baaxul te ñi nga xam ne aussi dañuy yàq man maa ngi la ñuy invité ñi bañ a yàq ñi xool ndaka la ñuy trouver un terrain d'entente pour un Sénégal modèle parce que ñun loolu la ñuy woote union pour un Sénégal modèle di jéggul nag bu dee wax naa fi ay kàddu yoo xam ne nii ay kàddu yu ma warul wax la maa ngi jéggulu parce que ndaw dong laa bi bëgg réewam bi bëgg réewum raw li nga xam ne mooy Europe raw li nga xam ne mooy asi raw li nga xam ne mooy Amérique te su ma jàppee ñun ñëpp ñu àndandoo jàpp Sénégal dina avancer tey fi mu fu mu fu mu toll bëgg naa Sénégal bëgg nga Sénégal bëgg nañu Sénégal nañu xool ndaka la Sénégal di demee ñi bañ a xool li nga xam ne mooy delloo ginnaaw Sénégal di invité aussi opposition bi ñu réunir seen force yàlla def na ma nekkoon candidat nekkoon numéro 169 ba bàyyi lépp bàyyi lépp amoon naa presque 43 mille pare bàyyi lépp dem ànd ak opposition bi rien que pour ñu am benn candidat boo xam ne ni dana mën a ànd ak moom pour liggéeyal askan wi. loolu tey moo ma may pouvoir may ma audace may ma sañ ma jël sama mouvement dem ànd ak ki nga xam ne mooy Diomaye président te ba ma koy def dama ko def te yàlla tax defuma ko poste defuma ko ngir xaalis defuma ko ngir puukure mais damaa jël décision jël engagement def ko parce que li tax ma def ko démb la avant tey mooy maanaam man damaa nekk un membre de l'opposition ànd ak ñoom di liggéey depuis fit kon tey ba lii di am kon mënuma ànd ak keneen ku dul opposition bi incha allahu rabi ba yàlla def ëllëg incha allahu rabi bu ñu yàlla mayee euh, pouvoir ñu nekk président bu boobaa kat dinañ mën a réunir at ñëpp ànd ak ñoom liggéey ak ñoom ci njëkk ak teraanga di gërëm ñëpp di sant ñëpp dinaan naan yàlla na yàlla defal jàmm jeunesse bi yàlla na yàlla defal jàmm euh, mag ñi yàlla na yàlla defal jàmm Sénégal yàlla na fi démocratie bu dëggu yàgg sax yàlla na réew mi nekk si jàmm ak salaam yàlla na yàlla def jàmm ak salaam bépp sénégalais buy yeewoo ci réew mi ak ci bitim réew yàlla na la yàlla defal jàmm defal la salaam. di gërëm bu baax ak di sant bu baax ñii di suñu kilif diine yi du ma lim képp bépp mboolem bépp kilifa diine buy yeewoo ci réew mi ñu ngi lay gërëm sant la bu baax te bëgg nañu yéen aussi ngeen jug waxtaan ak askan wi pour ñu xool ndaka la réew mi di demee ndaka la réew mi di avancé ñi ñaan yàlla président Macky Sall euh, nga organiser élection yi le plus rapidement possible ñi bàyyi li nga xam ne mooy système de parrainage ñu xool képp ki nga xam ne candidat bëgg nga nekk candidat bëgg nga nekk président am un programme boo xam ne ni programme buy jëriñ réew mi la ëllëg ñi bàyyi ko mu jiite ñi bàyyi ko mu déposé sénégalais yi ensemble xool ku ñu bëgg ànd ak ñi ànd ak ko ànd ak moom su ko defee Sénégal am jàmm ak salaam te yàlla na Sénégal am jàmm ak salaam te jàmm la ñuy woote yàlla na jàmm sax ci réew mi Vieux Thiane président union pour un Sénégal modèle defar Sénégal ñi ngi invité ñëpp képp ki nga xam ne bëgg nga bokk suñu mouvement ñi ngi lay invité nga ñëw dugg suñu mouvement danañ fi def numéro boo xam ne nii moom mooy daw ci suuf ecran bi que numéro boobu noonu moom lañ la ñuy invité ngeen ñëw ànd ak ñun ngeen bokk suñuy groupe WhatsApp. parce que am nañu ay représentant au niveau de chaque région du Sénégal rien que pour doxal Sénégal yi euh, doxal Sénégal parce que tey am na lu ñuy xaar loo xam ne nii suñ ko defee ëllëg incha allahu rabi Sénégal dina dox si jàmm ak salaam ñi la ñuy di la ñuy sant wasalaam.